réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. les patriotes TV. ñetti manifestation ci benn bis waaye ci benn heure walla sax ci benn dëkk boo xamante ni nar na fa am laataa ñu yàggale xibaar boobee ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ci ànd bi naan ak seen seen bi di les patriotes TV. yow mi gan si seen bi ñu ngi lay ñaan nga abonné te activé cloche bi waaye bu leen fàtte di like vidéo yi bu leen mi duñu soutenir suñu seen bi nga xamante ni moo di info sport Sénégal gis nañ soutenir yi bu baax a baax waaye ñu ngi leen di ñaan ngeen yokk ko ndax 1000 abonné mooy li nga xamante ni moom la ñu si bëgg ñu dooree koog F24 rassemblement bi nga xamante ni nar ko amal tey ji samedi ji 24 février 2024 11 bu jotee mën nañ ne 11h lu des suñu diggante ak moom mën nañu bëreetul mu war a amee fi nga xamante ni moo di terrain HLM Grand Yoff en face stade Léopold Sédar Senghor mën nañ ne manifestation boobee nag mu ñu sukkandikoo si Yolande Camara mi nga xamante ni moo ko publier si page Facebook am manifestation boobee autorisé nañ ko tey jii kon nag mu nekk loo xamante ni mën nañ ne deux bi mooy deuxième fois ginnaaw ay manifestation yoo xamante ni ñu ko doon sàkku préfet bi di ko tere waaye préfet bii nag préfet bi daal dina koy nangu. beneen ba ca topp nag di beneen boo xamante nii nag mën nañ ni ñi nga xamante ñooy jàppal tànk président Macky la xam naa ne sax du la neex waaye information la foofu ñu jàllale ko mu ñuy jàppal tànk président Macky Sall ñoom ñoo ñooñu nag ñoom it nag seen manifestation ñoom it bi nga xamante war nañ ko amal tey jii samedi 24 février 2024 bu 15 heures jotee woowu tamit ki nga xamante moo di préfet ba muy autorisé nañ ko ñoom ñu war a départ fi nga xamante ni moo di rond point Sénégal Japon war a jubali fi nga xamante ni moo di rond point Liberté 6 ndar keppeekook beneen autorisation boo xamante ni am na tamit si benn mobilisation populaire boo xamante ni collectif bi ëmb famille ñi nga xamante ñooy détenu politique yi tamit tey ji samedi ji la war a am moom tamit war a commencé fi nga war a amee fi nga xamante ni moo di terrain Sacré-Cœur 3 en face de la VDN moom it 15 la war a am mu nekk ñaari manifestation yoo xamante ni yëpp autorisé nañ leen te ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk même heure ñu xool nag ñaar manifestation yooyu nag ban moo si ëpp li nga xamante ni moo di mbooloo ndax bu euh, bi nga xamante ni moo di bu président Macky Sall bi la wala sax bi nga xamante ni mooy bi ëmb collectif famille détenu politique la